internet Dakar ba ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare euh, di am mbégte jàkkaarloo ak yéen waaye di sant yàlla te ni ngeen ñu toppee tey ñu ngi fii ci HLM li ñu fi indi nag mooy benn famille boo xam ne dëkk nañ ci benn kër plus de quatre ans dëkk ci bi tey jii euh, ñu ñëw borom kër gi ñëw ànd ak ay alkaati nee nan génne leen ñu bëgg leen a laaj nag yëf yi nan la demee ndax foo dëkk quatre ans yaakaar naa ne buñ lay génne tam war na noo leeral lu tax ñu génne la kenn ci nga na ne ci ñuy bokk ci kër gi ci la bokk moom laa taxawal nii laaj ko nan la demee ku baax maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tribunal la. Ibrahima Sène. Ibrahima lan mooy seen problème. waaw ñun lii suñ problème mooy appartement bi ñoo ko jël en septembre 2017 bi nu koy jël sama grand bii laa àndaloon Mortale Diouf ak sama beneen frère bu naan Babacar Sène ak Mar Sène kenn ki léegi dem na village mi ngi liggéey foofu ci tool yi ki ci des dem na Espagne maag kii ñoo fi des ak suñ yeneen frère bi nu koy jël nu jël ko sous contrat yëkkat six cent soixante quinze mille francs jox weer bu dee deux cent vingt cinq mille ñu ne trois mois d' avance la ñuy joxe deux mois yi moom le propriétaire moo ko moom un mois yi courtier bi moo ko moom. bi nga xamante ni jël nañ ko ba nga xamante ni ñu ngi nekk ak moom mësuñoo tardé location boobu ba léegi dañ koy fay mësuñu ko amel un franc am nañ décalage trois mois yoo xam ne ni ay jour la. parce que contrat bi le 5 moo ci ne mais décalage bi bii la 6 ko fay bii la mais taxut sax mensuellement ñu mës a sauté 1 franc bañ ko koo fay bañ ko jëlee ba léegi weer wu dañ jox ko 225000 ñu ngi ak suñuy reçu ñu ngi et weer bii passé man maa ko jox man le 5 bii passé maa ko jox tey le 8 mu ñëw jaañu doole dem ger ñi ci kaw ay huissier de justice la ñëw woo leen ànd ak commandant wu HLM xaw ma ger xaw ma lu mu def ak ñoom ñu ñëw man sarax laa jógee fi may waxee yow nii damaa nekk sax agent presque parce que ndekkiwu ma añu ma damaa dem sarax xombal vers 11h lañ ma woo expliqué ma lii ma jëlaat noonu oto ñëwaat gis nga suñ bagage yi ci gor yoo xamante ni liggéey rek la nga xam ab jaamu yàlla muy loo xam ne naqaru na ko ba ca kanamu yàlla ñu nekk fii nag Sénégal sàccuñu defuñu dara dañu doon loué ñu koy fay par weer mensuellement dañ koy jox deux cent 225000 am dañoo ñëw tey jii rek nii nga ci yeme man ni laa si damaa ñëw fekk huissier yi ànd ak policier yi ak des ñu dajji xanaa appartement bi génne bagage yëpp maître Wade te mosu leen koo yoreel benn dërëm. mosu ñu koo yoreel un franc on a non reçu kay suñu reçu ngeeg ñun. te te ci biir te ci biir coow itam mosu leen dëkk mosu leen am benn coow pour wan leen da ngeen war a génn wala dara. mosu ñoo coow à l'avant 2019 août am na ku ñu woowoon ne ñu octobre dañoo soxla benn procédure tribunal grand bi xëy na dem fa nekk fa ba midi moom gisuñu ko demul ñu révoqué audience bi. bi nu ñëwee woo ko ne ko Ablaye yan motif moo tax nga ne dañu yóbbu tribunal ci couleur dara discuter wu leen xamante wu leen xamuñu sa famille xamuñu dara sa jabar benn jour lañ ko gis mooy jour bi ñu ñëwee di la indi sa avance yeneen jour yëpp gisuñu kenn ku nga xamante ni moo bokk ci yow lan yan motif moo tax nga kole nga kole ñu ba ne dañu yóbbu tribunal waxuñu lu leer. ay na la nan bàyyi mu sedd nan bàyyi nangam ñu ne ko duñ bàyyi mu sedd mettre ñu au courant mu ne noonu loolu daal euh, du dara parce que dama bëgg rek ñu dëkk jàmm assuré respecté contrat yi moo tax ma doon def lool ñu ne ko ah comme loolu la baax na contrat bi moom doo ci am la naqari dépp boobu ba léegi contrat bi c'est à c'est à respecter c'est à koy jox xaalisam mensuellement le 5 lay ñëw des fois sax le 4 ci guddi lañ koy jox xaalisam parfois mu ñëw la 5 ñu jox ko xaalisam 225000 par fin du mois mësuñu koo amel un franc ñun daal lii daal mooy li nga xamante ni. naqari noonu te xamuñu fu ñu koy jooyee te parce que tey jii nga ñëw bizarrement rek ñu tëbatëb génn say bagage fan la ñuy fanaan nekk ay liggéeykat di denc euh, suñu xaalis si kii ba léegi nii dañ ne dañuy xoo xaar huissier de justice am na valise bu nekk fee def naa fa cent cinquante mille démb laa ko fa def bi may dem ci benn poche rek laa ko ma ko parce que comme dañ ne dañ xaar huissier de justice ñu ñëw xool lu def laalu ko ci xamante ni dañ lay fay par weer léegi tey jii nii mu ñu génnee nii léegi ñun fan lañ jëm xam nga bu fekkoon may nañu délai 6 mois ne dañuy génn seen kër nga xam ne selon les normes ñun rek euh, loolu respecté nañ ko amul problème kon dañuy luñ koy fay fu ko fay am appartement 225 fu ñu ko fay fi HLM am appartement. Mhm. te yéen bi ngeen di dugg ci appartement bi joxe mois avance yi. 3 mois avance lañ ko jox bu ñëwee toog on lui a donné ce 3 mois là le 22 septembre premier euh, tabaski gi bi ñu ko ko joxee ne ko le premier octobre grand bi ñaan ko ne ko est-ce ma fi mën dëkk moom. parce que moom boobu amul fi mu dëkkoon dañ ko bi daa tuxu si France war a jël appartement bi foofu mu ne ko est ce que ma ma fi les 9 jours yi resté mois bi dafa di ñett te boobu moom déménagé wu dem ak soxnaam Kër Massar mais dana ko bi doo fi dëkk lu le premier grand bi mu ñëw après Tabaski le 3 mu ñëw dëkk fii ñun après euh, avant le 10 bi ñu ñëw boobu ba léegi contrat yi un franc manqué wu ci. te daa leen norme bu ko tëdd mooy caution bala. tëdduñu dara te bi ngeen ko joxee deux jël na ko. jël moo ko jël ñu ne ko ñu ne ko avant ñu lay jox xaalis bi da ngay ñëw on a des témoins oculaires Mortala mi ngi nii Cheikh Ngom ngi ni Cheikh Ibrahima ak yeneen booy yëpp fekke nañ ko ñu ne ko da ngay ñëw ñu discuter parce que weer wële passé am na ku ñu woo nañu damay ñëw génne leen appartement bi ñu ne ko ci yan base nga ko teg kooku bi ñu demee maak euh, sama grand bi ñu dem ci euh, euh, capitaine maître Mademba Gueye bii nekk fii ci waagu ñaay bi ñu ne ci bureau moom mu ne du moom du moom te kenn ku nekk ci moom waxut loolu ah ñu daat ne loolu kat kon nu mën a demee noonu tey jii bi nu ñëwee ma dem ba Mademba Gueye sa même Mademba Gueye moo ñëw ànd ak xanaa commandant bu HLM ñu génn ñu. léegi lan ngeen fas yéene. Ah, li ñu fas yéene mooy ànd ak justice bu ñu demee peut-être sax la justice est déjà corrompue parce que tey jii nii même bu ñu demee ci yoon est-ce que tax ñun ñun ñun dinañ am li nu li war am parce que déjà justice bi nga xamante ni moo gën a au niveau de l'ASLEM mu ngi nii mooy euh, euh, commandant de euh, kii bi de police bi mais tey jii nii moom moo ànd ak une huissier de justice ñu ñëw génn ñu. ñu gis seen yenn seen bagage yu ci mel ne armoire ñu dajji ko. yoo xam ne pour monter waat ko sax dana xaw a nekk problème. armoire yëpp ñëwuñu sax démonter ko normalement fi ko waroon a jaar pour démonter ko lép lépp ko koo dajji. ko koo dajji spécialement ñëw jàllal ñu bagage ci mbedd mi jëlaat ay canard yu bees tàq monter ko ci kaw léegi laa dem doon ci courtier yi nga xam ne fa la ñuy toog. bizarrement ci laa tase courtier bi nga xam ne Ablaye Diop moom la jox appartement bi ba il y a une semaine jox nañ ko ci avant 500000 moom mu ne sax jox na ko commission 250000 maa ngi bi ñoo ànd bi ñu courtier bi wax léegi nii. moom lekk na ci ci ñoo xamante ni weer bi fay nañ la yoreluñ la dara nga jëm di louer appartement mayoo leen leen dara nga dem lekk 500000 parce que da cee yokk 25000 francs mooy suñu différence te amaana sax. comme dëkk nañ kër gi miin na bu ñu ne kat appartement bi 225 000 li nga ko luwee dama bëgg ngeen teg nangam na 25000 ce n'est rien kenn ci ñun rek mën na koo teg ñu fay ko mais waxuñu ko moo ñu différencier moo tax mu joxe appartement bi. kon yéen li ngeen mooy li di fay moo tuuti moo tax mu bëgg a génne. non li ñuy du tuuti parce que moom bi mu ñu luwee kër gi 225000 boobu ki ci suuf 125000 la mi léegi kooku bi nga xamee dem na ba ñun ñu jël kër gi deux cent vingt cinq mille di ko fay mu gis ne décalage na cinquante mille ko ci motif bi mais da ko mayoon délai mais daa def le tout pour génne kooku loyer bi ci suuf deux cent cinquante bi terminé ci kaw deux cent cinquante bu ñu newoon deux bu ñu xoolee mu arrangé ñu dañ koy yokkal vingt cinq mille mais ko mais doole bi ñu jaay ba ñëw génn ñu la xamul loolu ci fan la nekk. lan ngay wax ci justice Sénégal. justice bi moom la justice xoolal la justice est couchée. justice amu fi justice bi tey jii même le président Macky Sall bu koy dégg na xam ne la justice est corrompue la justice est couchée il n'y a pas de justice au Sénégal parce que tey jii bu fekkoon am na justice moo fiy dox une justice libre et transparente lii du am parce que dañ leen di un francs ou francs nga gis un commandant de police s'est déplacé avec toute une foule ah de sa délégation avec deux voitures mu rempli de policier avec un huissier de justice ñu toll ci lijaasa nekk des hauts gradés de l'armée tey ñu ñëw def ñu lii parce que ab 100000 francs wala nangam bu leen jox kooku ana justice foofu ana justice foofu justice amu fa sawaay fan ngeen fas yéene fanaan nag. ah mais xamuñu en tout cas de toutes les façons bu ñu xoolee ba 20 heures mënuñoo am fenn fu aw bu ñu ñëw ñu ci bi wala ñu condamné ñu yóbbu ñu tribunal mais dañuy dajji appartement bi dugaat ci biir parce que ñun raison lañ nekk bu ñu yóbbu ñu yóbbu ñu jaay ñu doole yóbbu ñu bu ñu yóbbu la justice va triompher dëgg bu te Ablaye Diop mi nga xamante ni def na lii nañ dem ñun ay gor lan nangu liggéey liggéey lañu xam daan suñu doole di taalibé Serigne Touba taalibé Maam Cheikh Ibra Fall rawatina ci yaa ngi dégg lii mu ñu def nii balaa heure bii déwén barke Cheikh Ibra da koy da koy da koy dina ko gis parce que ay gor kenn du leen toroxal te am na jaam yàlla xam ne ku leen toroxal gis ko te moom dina ko gis par A ou B toroxal nu la bëgg mais dina ko gis gis nga bu doftoloo kër gi dootu ko utiliser waaw lan mooy seen problème exact ak waa ji waa ji amuñu benn problème la cinq bi passé taxaw na fii fii la taxaw fii fii fii la taxaw la léegi lu tax kon moom mu ne da ngeen di génn parce que tam xanaa bu dee da di génn am na fu mu ko teg lan bi dan na ko bu fekkee bëgg nga bëgg nga ñu génn sa kër may ñu dele ñu génn sa kër mu ne su ma demee naan may dele le huit tey mu ñëw génn ñu kon dafa kon dafa mel ne ay coow ak ay wax amoon na ci parce que le fait que mu ne leen da di génn discuter jot ngeen discuter non ñun euh, suñ patron bi ki nga xamante ni moom moo la doon jox suñ xaalis chaque jour chaque jour doo boo doon booleeg ay nit ñu koy woo téléphone mais ñoom dunay police dunay dara comprendre nga dafa dem ba bu ko bu ko police yi woolee sax du leen du leen sax gëm la cinq mu taxaw fii ñu fay ko xaalisam mu ne naa leen may dalee ngeen génn sama kër le huit tey ñu ñëw fekk suñu bagage yëpp ñu génn ko yàq ko sànni ko fee si biir te am ñoo xam ne seen xaalis mi ngi woon si biir ne gisuñu ko am nañu seen xaalis am ñoo xam ne gisuñu seen xaalis mais li a ngi dëkk ci kër 4 ans di fay ko a mu tëb tëb génn suñuy bagage naa leen may dalal lu wit mu gën a mu gën a suñuy bagage te ko dërëm dërëm ñuruluñ ko bu gën a ndaw dara dara yoruluñ ko le cinq fu mu jotee day ñëw taxaw fii ñu ñëpp ñu taxaw wañ suñu xaalis ba mën sëkk ko tant que ren ba sax dañ ko ko tardeel ngeen ne bi ngeen di génne bagage dafa amoon xaalis bu newoon ci biir néegi itam den gis am na am na ne gis nañ seen xaalis am na yoo xam ne gisuñu seen xaalis léegi lan ngeen fas yéene fas yéene dem seeg moom ba ba fu mu fu mu neex fu mu yem rek neex. tur bi nan la man Moussa Sène laa tudd. waaw ci ñi dëkk si appartement bi si bokk. si laa bokk waaw néeg bee laa dëkk man sama benn copain ak raxam waaw. ma jaxasoo mais bu ma. xoolee bi fay moo nekk nii. bi ma mujjee fay moo ngi nii. mardi bi te bi nga ko fay dicté wala dara. lundi lundi laa ko ko fay à dix neuf heures et quelque ma woo ko parce que daf ma woo dafa xëy sept heures sept heures du la ma woo ne ma location bi lay jël ma ne ko Ablaye sa xaalis moo ngi fi quoi mais. il fa que nga xaar ba vingt heures gars yi wàcc nga ñëw ñu toog waxtaan quoi parce que lu mënta wey dañ koy wutal fu mu yem quoi parce que ak jamono Covid bi bi mu amee ba léegi parce que laay lay farataal di fay Ablaye Diop Ablaye Diop ay le 7 ay le 8 musuma ak ak moom le 10 ñëpp mun nañ ma seede région yaa ngi nii. mu ne temps boo ko tardé fay rek da ngay gis mu woo benn mu teg dil ak benn IG mu envoyé benn. benn benn benn élément am andi benn kayit ne dañ lay génne wala ñu woo ma non dañ lay génne nii na jéem a di jéem a infiltré moo tax ma ne ko leen di ñëwal fii ñu toog waxtaan parce que man am na loo xamante ne nii man mënatuma ci continuer quoi su fekkente ne dañuy toog sa kër gi dañ ñuy may jam su weer dee nga ñëw jël sa xaalis dem sa yoon su fekkente ne nii da gis keneen ku mën ci appartement bi lu ëpp li ñu mën nga wax ñu nga bindal ñu congé d'expulsion ñu génn c'était simple mu toog toog ba mu yàgg mu ne léegi loolu laay def quoi léegi dama leen di bindal kayit ngeen génn c'était lundi mais tey jeudi ñu ñëw xëy mu ànd ak police ak benn IG ñëw daji bay ba ñu liggéey mu daji appartement bi génn suñu ay bagages bref pour la pour laquelle léegi nag c'est à vous de juger yi ñoom ñooy juger yi koo xamante ne nii yaa man maa ngi jox six cent mille avance amee lu ma ko benn arrière suma xaalis su chaque weer maa ngi koy fay amelu ma ko benn arrière dama jaxasoo grand fi nekk nii amelu ma ko benn na sénégalais yëpp comprendre rek amelu ma te tey jii su ngeen doon génn tey am ngeen droit dëkk ci appartement bi deux mois yi nga xam ne mooy ngi sa caution bi. ah yaakaar naa ko yaakaar naa ko parce que fan laay fanaane nii ak suma ay bagage koo xamante ni yoralu ma ko benn dërëm seetaan lii ba kañ lii ba kañ ah. li dañu jaay doole lii jaay doole la parce que même gendarmerie Colobane laa jógee léegi brigade de recherche ma ko expliqué chef bi ne foofu dane ma jaay li jaay doole la parce que nit ki soo koy génne di ko may sax bu dee deux mois wala trois mois mu dem seeti fu mu dëkk mais ñu fay ko lundi jeudi tey mu ñëw génne ñu loolu fu mu am